le 23 janvier mooy dañu bëggoon am changement fii biir Dakar changement bu radical moo tax bu ñu jëlee fonction le 17 février ba tey ñu daal di jël engagement ci population yi que dinañ fësal suñu cofeel fësal suñu yéene ci Dakar ak ci ëllëgu Dakar te nuñ ko fas yéene defee mooy saay buñ ko yàlla mayee mooy toog waxtaan ak askanu Dakar te incha allah balaa ñuy def lu ñuy wooye bilan wu cent jour te cent premiers jours yooyu dinañ ko am incha allah le trois juin ci at bi balaa ñu koy def dinañ ñëw tout de même ñëw wone lu ngeen xam ne ni am nañ ko ci yéene ci dëkk bi ak ci askan bu yeewu fii ci dëkk bi bu ci am solo mooy wax ak askan wi ba wax lan mooy suñu taxawaay ak lan lañu fas yéene def ci ay fan yu néew S'il vous plaît, derrière, avec tout le respect qu'on vous doit, on s'excuse, mais permettez-nous de travailler, s'il vous plaît. Permettez-nous de travailler. Nous sommes en direct actuellement. Il y a des milliers de Sénégalais qui nous écoutent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous remercie, sans aucune sensation, sans aucune passion. Chers, chers amis journalistes, faites votre travail, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous ensemble. Merci. Voilà. ma doon wax que le 12 mai ci yàlla àndee incha allah fii ci mairie de Dakar dañu fas wane wonewaat suñu cofeel ak suñu yéene ci askanu Dakar le 12 mai incha allah conseil municipal bu Dakar moom moo délibéré ne de baaxee askanu Dakar lu toll ci un milliard milliard boobu nag dañ ko fas yéene joxe ci ay bourse xale yi mën a dem jàngi joxe ko tamit ci ay euh, financement ndax ñu bëgg a liggéey ñu mën a gis ci seen bopp joxe ko ci ay permis de conduire Euh, jox ko tamit ay ay handicapé moo xam ay fauteuil roulant moo xam euh, ay kit pour les dialysés moo xam ay couche pour ñu am ay doom yu feebar fas yéene tamit sargal ak sigil étudiants yi ñu fas yéene jël lu toll ci dix mille étudiants jox leen ay ticket de restaurant pour un mois fas jox étudiants yi ay tablettes fas yéene tamit jox étudiants yi tamit ay bourses d'études suñu yaay suñu jigéen yi ñu fas yéene ñu fas yéene leen tamit jox leen ay congélateur ay machines ay coudre ak ñoom seen di tamit jox ay kiosque multiservice di leen jox tamit ay bon Auchan loolu lan moo ko waral loolu lu ko waral. wax naa ko nee naa ci dëkk bu bu sérieux tey gouvernement bu Sénégal noroon na am yeneen priorité que nekk di bëgg a xam lan moo xew mairie Dakar parce que mairie Dakar moom euh, ku ko xamul daal ma xamal la ko waaw Yewwi Askan Wi moo fi toog loolu la yàlla dogal waaw te ñun waa Yewwi Askan Wi dañu fas yéene ci mandat bi liggéeyal askan wi wante nag ànd ci ak ñëpp te kooku je pense que ñu fi jot jaar di couvrir ay événements ba ci dernier conseil municipal dañu tàllal suñu loxo lu ñuy woowee l'opposition plurielle local donc dañ ko fas wax dëgg yàlla Dakar tabax ko ak ñëpp moo tax tey suñu toogee tey di gis ndóol bu am ci réew mi nit ñi suñu ndekkee duñu añ ndax lan xiif di gis tey dund bu cher bi di gis tey daanaka tey lu ñuy woye érosion du pouvoir d'achat mooy da ngay soo amoon mille francs at ci ginnaaw mu ngoon nga am ñaari mbuus tey soo amee 1000 francs benn mbuus sax mënoo ko am loolu yëpp dañ koy ñaawlu euh, ñu xool tamit naka la économie bi tamit yàqoo moo xam ci ay secteurs yu bëri mooy lu ñuy woowee rek la décomposition avancée des secteur de production de distribution et des services ñu xool tamit tey jàng bi nu mu nuñ ko yàq-yaxeet xool tamit tey lu Sénégal yi di tey ci mbiru faju mooy santé wax dëgg yàlla lenn rek laa ci mën a wax mooy di ñaax gouvernement bi nañu gën a góorgóorlu ci seen taxawaay te bañ a tas yaakaaru askan wi mbokk yi nag loolu moo tax tey ñun waa ville de ñu ne ala kuliyal foog ñu jéem a xoolaat suñu taxawaay jàppale suñu mbokk yi jëm leen dimbali pour ñu gën a mën a gis seen bopp ci yéene bu mairie de ak tamit ci yaakaar bu ñu am ci Dakar ak ci ëllëgu Dakar moo tax ñu ne lii di doomu aadama ñun waa conseil municipal de Dakar dañu fas yéene fonk doomu aadama sargal doomu aadama siggil doomu aadama ci doomu aadama te le 12 mai incha allah képp kuy doomu ndakaaru te sa loxo sa loxo jotul sa ginnaaw ñu ngi lay ñu lay invité nga ñëw bindu fii ci ci guichet bi nag nga mën a bokk ci ñu mën a gis seen bopp ci la journée de la solidarité que la ville de Dakar va organise le 12 mai. yi leneen lu ma ci yokk tamit mooy. ma bëggoon dalal xelu askan wi dalal seen xel parce que dégg nañ fi ay kàddu kàddu yooyu nag ñu am yaakaar ku ko yëkkati daanaka bu may yëkkati kàddu yooyu xelam demul ci ville de Dakar parce que su nekkee loolu mooy le cas xanaa ñu ñaanal ko rek yàlla may ko xolu muñ parce que lu yàlla dogal le 23 janvier ñëpp xam nañ ko mooy ñoo fi toog pour juróomi at te fas nag toog fii te liggéeyal askan bi parce que loolu mooy suñu warugar moo tax ñu bëgg a wax nañ leen bàyyi ñu wax wante ñun lii suñu warugar xam nañ ko te dañ ci taxaw bu baax a baax moo tax mbokk yi mais dalal seen xel dama ne xam nañ lan mooy suñu mission xam nañ lan la ñu yoon may ci ay sañ-sañ xuloo taxuñu jóg xeex pour ñu xeex foog ñu nekk ñaar te man Barthélémy Dias ba ma noor xeex xeex naa ànd ci ak Yewwi Askan Wi ba yàlla may ñu ci ndam kon tey ñu foog ne ni ñoom seen responsabilité mooy jéem a xool nu ñuy xeex ak mairie de lenn nag laa leen mën a wax mooy xeex pour ñu xeex une fois de plus on doit être deux te ñun lu ñu fi indi tey du xeex lu ñu fi indi tey mooy liggéeyal Dakar ak liggéeyal askanu dakaar ak ëllëgu dakaar kon nag mbokk yi loolu laa bëggoon wax ci gàtt ci wolof yëgal tamit askan wi nu ma ko waxoon ci campagne bi dañ ma bëggoon dëkkaloo fu ma dëkkul taxaw ne Barthélemy Diaz su ngeen ko falee maire de Dakar day jël mairie de Dakar mu doon gànnaay ci moom pour xeex ak état dama ne mairie de Dakar ba may campagne naa leen su ma jëlee mairie de Dakar dama fas yéene ànd ak état liggéey ak état parce que loolu mooy suma responsabilité te loolu mooy suma cër te may yëgal askan wi lu ma waxoon ci campagne bi bañ may installé tamit ma joroon ko tamit dégalaat fii mooy dama waxoon dinaa sàkku audience ci président de la république audience bi nag dugal naa ko mi ngi nii ma bëgg nag leeral wax ci Barthélémy Diaz soxlawul gis Macky Sall loolu wax dëgg yàlla amul amul amelul askanu Dakar benn intérêt wante maire de Dakar ba ma doon dama fas yéene dem seeti président de la république pour ñu mën a waxtaane waxtaanu Dakar ak waxtaan waxtaanu ëllëgu Dakar di am yaakaar nag président de la république dina nangu audience bi am tamit yaakaar que président de la république dina nangu tamit régler yenn problème yu ngeen xam ne ni mairie Dakar am na ko te mu nekk ay problème ngeen xam ne ni lépp politique moo tax problème yooyu mairie Dakar di ko di ko dund donc nag mbokk yi laa bëggoon wax <coughs> audience boobu nag ma bëggoon wax ji leer laata ñu dem ci audience boobu dinañ am tamit benn euh, communiqué bu ñuy baaxee askan wi parce que wax jooju sax mën na ñàkk wante naa leen ko baaxee rek comme ñoom nee nañu ñoom dañuy dalal seen xel nee nañu dañuy daal di recruter ay maire anaka ay transhumants waaw ñun loolu yóbbuwuñu pale ñun lu ñu yóbbu palais mooy jéem a xool lii di la ville de Dakar naka la mën a liggéeyee ak état bi naka la mën a collaborer ak état bi ci loolu tamit maa ngi ñaax président de la république que lépp lu ñuy jéem a waxtaane suñu biir wala lépp lu ñuy jéem a liggéey nañ ko teg ci yoon te mu bañ a nekk par parloo Dakar 19 communes la président de la république su jógee ba taxaw ne am na yéenewu tabax Dakar wax dëgg yàlla man damay sant yàlla ci loolu wante président de la république su bëggee tabax dakaar priorité bi nekkul plateau priorité bi nekkul Médina dama ne am na fi ay commune seen salaire sax mënuñu ko fay balaa ngay tudd plateau te maa ngi nuyu di ziar suma mag suma doomu ndey la maire Alioune Ndoye balaa ngay tudd Médina maa ngi au passage nuyu le maire de la Médina na nga tudd Cambérène na nga tudd Grand Yoff na nga tudd Parcelles Assainies ku dal Dakar waxal waxu Dakar te may wax ci moo tax ma bëggoon leegal wax ci ku bëgg tabax Dakar dangay ngay ànd ak dal da ngay ànd ak yéene da ngay ànd tamit ak cofeel ci askanu Dakar ak ci Dakar mais nag ku bëgg tabax Dakar bëgg ci def nag par parloo ak mbiru politik wax dëgg yàlla loolu man xajuma ci te am naa yaakaar na ne que président de la république dina xam fu may waxee nekkoon na fi maire xam na lan mooy maire yàlla loon tamit mu nekkoon fi ministre de l'intérieur xam na bu baax lan mooy Dakar nekkoon na fi tamit premier ministre xam na bu baax a baax a baax Dakar xam na difficulté wu dakaar xam na urgence wu dakaar yi donc audience boobu euh, j'espère que dinañ ci jot te am tamit yaakaar suñ ci génnee incha allah Dakar dina gën a euh, am taxawaay euh, te Dakar tamit en tant que commune en tant que ville dina am une meilleure collaboration avec les démembrements de l'État dans l'intérêt général des populations ngeen may ma nag mbokk yi ma mën a ma mën a wane yenn acte yu ñu posé ba ñu toogee ba tey parce que wax naa leen ko dañu am ay objectifs pour les cent premiers jours ñu am ay objectifs pour les dix-huit premiers mois ñu am tamit ay objectifs pour le mandat cent premiers jours yi incha allah le 3 juin lay lay lay am bilan boobu mooy un pré-bilan des cent premiers jours le 3 juin dinañ leen won lan lañu liggéey ba ñu egsee ba tey te di gis les chantiers en cours ñu ngi commencé di pavé lii di armel yu nekk yoof ak Béthanie te su ngeen demee actuellement Yoff ci parking bi di ngeen fa gis ay pavé am nañ fa lu ëpp demi hectare u pavé yu fa nekk ñu fas yéene nag liggéeyal euh, liggéey plus ou moins armel yi te tamit euh, ormal mbokk yi fi nekkoon te yàlla dogal ñu jiituñu euh, barsax te loolu lu ko waral mooy jéem a góorgóorlu ba euh, cimetière yi gën a jekk gën a rafet nit ñi gën fa mën a gën a déplacé wu et tamit ñu mën a améliorer le cadre de vie de ces lieux qui reste ay des lieux fréquentés par le public te mu bokk tamit ci suñu cadre de vie di ngeen gis que toujours dans la même veine dans le cadre des cent premiers jours dañu cibler la construction de centres médico-scolaires donc arrondissement Grand Dakar ci CEM Ousmane Socé Diop ñu ngi fa ñu ngi ci arrondissement Parcelles Assainies ci CEM Scat Urbam ñu ngi ci arrondissement des Almadies ci CEM Adama Diallo ñu ngi ci arrondissement du plateau ci CEM John Fitzgerald Kennedy di ngeen gis avancement des travaux yi nu ngeen gis ci ci jàppoo bi mi ngi nii donc ñu ngi def suñu kéem kàttan ba xale yi mën ci gis seen bopp ko enseignant bi tamit mën ci gis tamit boppam donc travaux yi ñu ngi avancé ñu ngi tamit ci mbiru réhabilitation mooy CEM ñu nekk ci ville de Dakar naa ci lim CEM naa ci lim CM Arsène Fridol mooy ex-Clébert mën naa ci lim CM Ousmane Koumba Paté mën naa lim le CM Blaise Diagne le CM Mame Thierno Birahim Mbacké CM Malick Sy CM Cheikh Awa Balla Mbacké bloc scientifique bu Point E CM Ahmed Sy Malick CM Martin Luther King CM Abdoulaye Maturin Diop ak CM John Fitzgerald Kennedy te nu ngeen ko gisee ci jàppo bi travaux yëpp démarré na di ngeen fi gis ay écoles yu bëri xale yi suñu demee sax jàngi école du ñu am sax récréation ay toilettes fu ñuy mën a dem pour mën a soulager wu donc góorgóorlu ba suñu doom yi naru doon ëllëgu Sénégal ëllëgu Dakar suñuy dem école ñu mën a dem au moins école dans des conditions décentes et acceptables ñu ngi am tamit projet wu aménagement hydraulique bu bassin de rétention bu Grand Yoff ñu ngi waxtaan ak ay partenaires pour mën a boucler financement bi bassin bi nag mi ngi toog ci benn assiette foncière de 7 hectares projet bu ñu commune de Grand Yoff baaxee projet yu juróom-ñaari milliards la mooy bu ñu tëj bassin bi yëpp def benn aménagement paysager aménagement. Euh, de commerce et de promenade ci ko bassin bi wante dinañ gën a xóotal waxtaan ji ak commune de Grand Yoff ak askan bu yeewu Grand Yoff bassin bi mu ngi toog ci sept hectares juróom-ñaari hectares man suma xalaat bu gàtt mën naa jum wante suma xalaat bu gàtt mooy bassin bi mën nañ ko liggéey ba ëllëg Dakar di ci gis boppam askanu Dakar tamit di ci gis boppam Euh, mooy lu ñuy wooyee ay pisciculture ak aquaculture mooy ay jën yu ñuy yu ñuy yar ci ay bassin am na benn étude bu Banque mondiale def étude boobu lu mu wax mooy nee na Sénégal bi fii ak 2035 daanaka 80 pour cent jën bu ñuy lekk Sénégal du jóge ci géej gi day jóge ci pisciculture ak aquaculture lu ko waral mooy suñu gaañ yi ñoom jël nañ géej gi ba jaay ko waaw ñu dénkaloon ñu dénk leen suñu géej ñu jaay suñu géej donc jël nañ géej gi ba jaay ko tubaab yi Union européenne pendant dix ans jaay nañ ko tàngale nañ ko moo tax tey Sénégal am ay problème nutrition mais surtout moo tax tey Sénégal am problème mu immigration clandestine moo tax ñu ngi ñaawlu bu baax a baax a baax posture bu état bi am Dakar nag am droit wu yëkkati ay kàddu gi parce que Dakar dafa nekk presqu'île dakaar dafa nekk dëkk bu am ay ay mool ay nappkat sur toute la côte moo xam Yaraax euh, euh, Kayar Bayaax fii biir dakaar Ngor Wakam Yoff et cetera et j'en passe donc tey suñu xoolee tey impact bu licence de pêche yu ñuy jaay Union européenne am tey ci la population dakaroise sur le vécu des Dakarois et sur la qualité de vie des Dakarois c'est un impact incommensurable moo tax ñu am yaakaar que bassin bi dina mën a éventuellement nekk benn palliatif à l'agression dont a été victime euh, les océans sénégalais ma wax ci waxu travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar fii nag ngeen même ma jaajëfee sargal bu baax a baax suñu mag le maire honoré Khalifa Ababacar Sall projet bi Khalifa Ababacar Sall moo ko initié woon ak benn pré BOAD pour réhabiliter lu ñuy wooyee la voirie de Dakar réhabiliter mooy defaraat tali yu fi yàqu woon waxuma tabax ay tali dama ne defaraat ay tali yu fi yàqu woon donc tey dañu décider commencer ci commune de Dieuppeul Derklé Castors askanu Dieuppeul Derklé Castors ak may dégg te am nañ yaakaar ci ay fan yu néew dinañ am mbégte ci liggéey gi suñu paree nag ci commune de Dieuppeul Derklé Castors dañu fas yéene dem ci commune Sicap Liberté te noonu lañ ko fas yéene defee ci 19 communes yi ba Dakar nekk une ville aux normes suñu paree nag ak projet bi dañu fas yéene defar beneen prêt BOAD de vingt milliards prêt boobu nag dañu fas nag tabax ay tali waxuma defar ay tali yu yàqu dama ne tabax ay tali foofu nag su ma xel a ngi dem ci commune de Parcelles Assainies commune de Grand Yoff am na yenn commune yu am ay gox comme commune de Fass Colobane Gueule Tapée suñu jëlee ay gox yu mel ni passe Euh, suñ jëlee commune bu mel ni commune euh, Grand Dakar suñ jëlee euh, ñoom xam nañ fu may waxee am na ay allées ay tali ay couloir yu ñuy tabax te loolu day bokk ci 20 milliards yu ñuy fas yéene sur le marché international donc nous continuons toujours avec suñu projet yi lu ñuy woowee le volet social waxoon naa ko ci campagne bi di fi biiraat wax ji nee naa suñu yàlla mayee ndam te ñu ngi ci sant yàlla dañu fas yéene euh, ormal doomu aadama fonk doomu aadama sargal doomu aadama moo tax volet social bi wax naa leen ci waxu la journée du 12 mai mairie de Dakar pour la première fois nanga yëkkati lu toll ci un milliard baaxee ko askan bi dimbali leen ndax jafe-jafe yi ñuy dund wante laata ñuy dem ci journée mai le 8 mai ci journée internationale de la femme nu ngeen ko gisee fii ci jàppoo bi le excusez-moi le mars journée internationale de la femme le 8 mars journée internationale de la femme joxe ay financement joxe nañu ay permis de conduire joxe nañu ay bourse joxe nañu ay bons de joxe nañu ay bons pour cent ku lim ñu ngi def suñu kenn kàttan ba mën a dimbali askan bi mën a jàppale askan bi ñu ngeen ko waxee daal lu fi am ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko Sénégal moom kenn waxutu fi waxu ndóol ñun dañu dépassé ndóol ñu ne leen la ñuy dund tey Sénégal kon xam ban xeetu natt la wante yàlla nañu yàlla gaaw a teggil boobu wax nag ci waxu projet bi mu nekk projet bu ñu ñor mooy extension du centre de gériatrie de Wakam di ngeen ko gis fii centre bi mooy centre bu nar a accueillir des personnes retraitées ay ñit ñu mag pour ne pas dire ñu màgget lii mooy maquette lii mooy maquettu centre bi di ngeen gis début de travaux yi travaux yi ñu ngi nii te am na yaakaar ay fan yu néew pour ne ak peut juróom euh, juróom-ñetti weer dinañ au moins mën a réceptionner le gros œuvre donc bañ a guddal loolu laa bëggoon wax dalal askan di dalal xelu askan wi ñun lu ñu tax a jóg mooy liggéey moo tax lu ma waxoon ma koy béralaat dama ne ñu bëgg a wax nañ leen bàyyil ñoom ñu wax seen droit la wante nañu bàyyil ak suñu droit wu droit liggéey te kenn duñu tere nag liggéey dama ne kenn duñu tere liggéey lu ñu namm liggéeyal askanu Dakar kenn te xulooñu si xeexuñu si waaw ci audience bi nag di ngeen gis jàppo bi nii jàppo bi dafa nekk un point bu may inscrire ci audience bu ñu fas yéene incha allah am ak président de la république lu tax jàppo bi am solo ci ñun <coughs> Sénégal dafa am tey lu ñuy wooye diversification des sources d'eau tey daanaka quasiment ndox bu ñuy am Dakar mi ngi jógee ci lac de Guiers en grande partie état amoon na benn projet état amoon na benn projet de dessalement boobu de mer projet boobu nag xaw ma fan la ci gars moom toll moo nekk la deuxième source d'approvisionnement en eau de Dakar troisième source bi nag mooy li ñuy woy la nappe phréatique nappe phréatique bi moom moom ngeen di gis ni su ngeen xoolee fii à gauche di ngeen gis lii mooy Dakar Plateau moo lu mooy lu ndaw lu ngeen di gis noonu à gauche li ngeen gis que effectivement ndox bi ba tey ndox bu baax na parce que tubaab yi bu ñuy tabax dakaar mooy Dakar plateau mooy ay Sicap ak ñoom seen foofu yëpp dañ fa dugal assainissement moo tax tey waa FONES su leen neexee mën nañu exploiter la nappe phréatique de cette zone mais su ngeen gisee su ngeen génnee Dakar commencé di dugg Grand Yoff dem Parcelles Assainies di wuti Guédiawaye Thiaroye foofu yëpp di ngeen gis ni que la nappe phréatique dafa dafa à la limite elle inexploitable ndax lan ndax ñàkk assainissement bu fa am fosse septique yu amul benn étanchéité yu fa nekk te fosse septique yooyu daanaka ndox bi day wàcc mooy lu ñuy woy le nitrate boo tax su ngeen gisee su ngeen génnee Kër Massar ngeen di dem Sangalkam di wuti bayaax ngeen gis ndox bi tamit naka la blowee parce que foofu ba tey ndox bi euh, elle n'est pas encore infectée wante état bi su ci jógulee fii ak maximum dix ans lu ñuy woowee la nappe de Thiaroye la nappe infectée de Thiaroye nappe boobu ci gàttal moom mooy dem bu tijji bayaax lu ko waral nag mooy ñàkk responsabilité bu état central nekkee ñàkk ormal doomu aadama yu yu état central nekkee dëkk bu mel ni Sénégal ñu am fii ay urbaniste am ay aménagiste am ay architecte am tout genre de spécialiste ci bëkk bi ñu ne dañuy tabax ay dëkk lëmb te amul benn assainissement moo tax ñun ba ñuy organiser suñu forum de l'eau ñu ne ñun du ñu nangu nekk dans la diplomatie de l'eau lu ñu ñor mooy nañuy waxtaanee ndox nuñ koy dundu ak nuñ koy nuñ koy gisee Dakar ci mbiru inondation yi ci mbiru euh, géej yi ak xale yi lab yi ak ñoom seen ak surtout nag ci mbiru la conservation de la nappe phréatique l'assainissement ma koy wax fi assainissement du compétence transférée maire moomul assainissement maire du gérer assainissement wante tey mënuñu nangu tey nekk maire bu mel ni Dakar yow mu wóor la ni que fii ak dix ans quinze ans Dakar à la le lac de Guiers Dakar du amati benn source d'approvisionnement en eau ndax lan ndax télé bu état central télé ndax lan ndax caaxaan bu état central nekkee te loolu du benn dëgg du benn yoon moo tax ça fait partie ma bëggoon nag bu wax ci leer parce que balaa may dee ñu ne Barthélémy Dias dafa dut baaram diw dama ne diw ñoruma lu ma ñor mooy état état nag yàlla moo dogal tey mu am ku koy ku koy représenté ñu koy woy le chef de l'état chef de l'état boobu ci audience boobu dañu fas yéene interpeller ko sur des problématiques qui relèvent de sa responsabilité donc foofu laay xaare état du Sénégal xaaruma état du Sénégal feneen donc nag mbokk yi moom laa bëggoon euh, wax ci ci wolof euh, xanaa gërëm ñëpp sant ñëpp éventuellement si y a quelques questions nous allons répondre à quelques questions avant de lever la séance maa ngi sàkku ci mbokk yu nekk ci ginnaaw ci nañu may ñu mën a liggéey suñu liggéey s'il vous plaît ñu ngi sàkku ci mbokk yi ci ginnaaw nañu may ñu mën a liggéey suñu liggéey ngeen ànd ak dal s'il vous plaît Voilà, nu avons donc une première question qui consiste à savoir si il y pas de bras de fer. daanaka ci gàttal da ngeen laaj xam est-ce que dina am bras de fer entre état central ak. dama ne bras de fer foog ñu nekk ñaar bras de fer bu mu am foog mu am ñaari loxo du noonu waaw ah, man damay bras de fer ci 23 janvier bi wax dëgg yàlla. bu nga defee bu su leerulee ci seen bopp leneen du leer seen bopp lu ñu leen dóoree ci élection yi xanaa leneen rek lañ ci mën a yokk mooy ñaanal leen yàlla may leen xolu muñ bu ci des nag mooy ñoom ñu nangu ànd ak ville de Dakar tabax Dakar liggéey Dakar sargal askanu Dakar foofu la ñuy xaaree état du Sénégal xaaruñu état du Sénégal feneen kon audience boobu waxoon naa ko ci campagne bi ne koy biralaat suma responsabilité la du Barthélemy Dias mooy jóg dem seeti magam Macky Sall ñun xamante nañu bu baax a baax a baax waaw bu baax sax waaw wante maire de Dakar ba ma doon suma responsabilité la ma ma jóg sol suma ay dàll ci tout Dakar dem seeti président de la République du Sénégal ñëw ne lii la Dakar namm lii la Dakar soxla lii la Dakar di xaar ci yow mooy suma responsabilité te loolu dama ko fas yéene euh, def parce que foofu la ma Dakar waas yi ak Dakar waay di xaare wax ngeen ci waxu organigramme de la ville de Dakar dama xamul lu tax ñu bëgg a capitaine Touré ak Guy Marius ba ma toogee ba tey dama tànn lu ëpp douze personnes suma cabinet am na ay chargé de mission am na ay conseil technique am na ay conseils spéciaux ñu ngeen di gis suma ginnaaw ñi ñëpp c'est le cabinet de la ville de Dakar lu tax kenn waxul seen wax yéen est-ce que xam ngeen benn waaye bu ñuy wooyee Omar Blondin Diop suma cabinet mës ngeen dëgg tur gi mi ngi ci cabinet bi mas ngeen dëgg ci cabinet bi ku ñuy woy Mamadou Ka mi ngi ci cabinet bi mas ngeen dëgg ci cabinet bi ku ñuy woy Khalil Diack mi ngi ci cabinet bi lu tax nag ñoom kenn waxul seen wax lu tax ñu bëgg a singal Guy Marius saaña ak capitaine Touré balaa may dee ñu ne ma waxu organigramme ñoom ñuy wax na ngeen dem xooli seen organigramme ak ngeen xool seen ay décision parce une chose est claire mooy présidence de la république organigramme bu fa nekk mënoo fa am presque trois cents ministres conseillers et conseillers technique et chargés de mission mënul nekk nekku fa waaw kon nag ñoom suñuy nekk ci seen maa tey man nangul leen seen maa tey wante nañ ma may man ma mën a liggéey suma liggéey nu ma ko yoon santaane ma bëgg nag wax ci leer constitution du Sénégal waxuma waxu décret ah. xam ngeen décret président moo koy kon nag man décret safuma dama ne constitution du Sénégal di suñu alxuraan di suñu bible moom moo wax collectivité locale yi dañ leen baaxee libre administration kon nag à amul benn loi amul benn décret bu mën a ñëw tegu ci kaw loolu mënul nekk libre administration mooy man dama ne préfet may dégg kenn Sénégal amul sañ-sañ ne ma balaa ngay tànn ñit sa cabinet da ngay jaar ci man ma joxe autorisation du ma ko def tey du ma ko def suba amut président Macky Sall ni ñu ko falee suffrage universel direct noonu lañ ma falee man suffrage universel direct man nekkoon naa fi député assemblée nationale du Sénégal président Macky Sall musul jaar assemblée nationale taxaw ne est-ce que man mën naa am conseil bi wala conseil bi yaa ngi wax waxu organigramme soxna si kan mooy directeur de cabinet du président de la république man xaw ma ko ah. wante lu ma leen mën a wax mooy lu loi bi wax loi nee na kenn mënul nekk directeur de cabinet du président de la république te amoo benn diplôme universitaire fa laa yem ci wax ci kon loolu la bi wax loolu la loi bi wax waaw man suma directeur de cabinet mi ngi nii titulaire de plusieurs masters ancien directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis ancien directeur de l'hôpital Abbas Ndao ancien directeur de l'hôpital Albert Royer titulaire de diplôme universitaire waaw ñu ngi wax ci woppu capitaine Touré d' abord capitaine Touré d' abord tey dañ koy jaajëfee te ngeen tàccul ma capitaine Touré que capitaine Touré dañ ko tey Sénégal ñoom ba ñuy seen complot capitaine Touré su yàlla dama ne capitaine Touré ay mbokk ma ngi may dégg. su gëmuloon yàlla peut-être tey dina dégg beneen grade wante nag su ko defoon tey senegal di ngeen dégg lu ëpp 14 morts capitaine Touré que Dieu garde et que Dieu man ma ko wax. Guy Marius Sagna nag moom tey Sénégal ci gàttal amatul syndicat ay syndicaliste di dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci. wante nag yàkkamtuwuñu fi kenn waaw syndicaliste ngay taxaw ne da ngay représenter les travailleurs de la ville de Dakar fii mairie de Dakar di ngeen gis nit buy liggéey am master cent quatre francs yu bëkk ak bàyyi da ko yóbbu këram voici où pour le nom et le compte des travailleurs de la ville de Dakar doivent parler te bàyyi ji dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci waaw man bokkuma man man dama ne dama ne mbokk yi mbokk nga il faut qu'on se comprenne ngeen may ma rek yéen waa presse bi ab déglu rek s'il vous plaît sénégalais ñu ñuy déglu ab déglu ab déglu leen jox exemple parce que waxuma waxu conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion parce que poste boobu ma ñëw poste boobu il a toujours existé la preuve à la ville de Dakar dafa am la DAS c'est la direction de l'action sociale mais su amee l'administration mais ci bureau municipal bi am na adjoint au maire de Dakar en charge de l'action sociale loolu bureau municipal la mais ci conseil municipal bi am na président commission action sociale waaw maintenant maire bu ma doon man kan moo may conseiller suma cabinet ci mbiru action sociale kan dama ne Guy Marie Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale il le restera il demeurera beneen bi ñu taxaw ne capitaine Touré capitaine Touré fan la nekkoon du gendarmerie fan la nekkoon ci gendarmerie du section des recherches lan lañ fay liggéey su nekkulee sécurité amoon na benn jigéen bu fi nekkoon décision moo nekk nii dama ne signé par madame le maire Soham El Wardini excusez-moi par monsieur Khalifa Sall maa ngi jégalu parce que dañu taf dañu taf tur pour nit ñi bañ a gis article premier ñu ne diw boobu te muy jigéen nommé nañ ko conseillère aux affaires communales nouvellement engagée non dañu ne kooku euh, waaw dañu ne jigéen boobu mu nekkoon mu nekkoon conseillère s'il vous plaît rek mu nekkoon conseillère aux affaires communales nouvellement engagée par contrat numéro tant tant tant bar VD mooy ville de Dakar du 22 novembre 2011 est nommée conseillère technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine fan la préfet Dakar nekkoon fan la président nekkoon bañ koy nome jamono boobu bañ koy nommé ba tey mi ngi fayeeku trésor tey ngeen taxaw man ma jël beneen décision su ma décision maa ngi koy jël moom soxna si ba nga Khalifa Sall di di di dugal ci cabinet bi c'était le 6 décembre 2013 dañu de article premier moom jigéen googu conseillère aux affaires communales nouvellement engagée par contrat numéro temps bar ville de Dakar du 22 de 22 novembre 2011 est nommée conseillère technique du maire de la ville de Dakar chargée de la sécurité urbaine mi ngi man ma ñëw yoon ma sañ-sañ ma bees talaat suma cabinet man ma jël décision du 21 avril 2022 ma ne contrat boobu dañ koy arrêté mooy jigéen boobu ma ne contrat boobu dama ko remplacer par capitaine Touré waa loolu damay laajte damay laajte rek kana ci mën dara ñu ne ma dafa am benn waaye bu taxaw leen nekk xaw maay waxu organique am maa ngi koy xaar fii fii laa koy xaar dama ne ces gens sont membre du cabinet et ils resteront membre du cabinet dama ne ku mu neex jóg def lu la neex man su ma jógee dinaa def lii di suma waru su leen neexee sax dites à qui de droit même de bloquer même les salaires au trésor, je dirais à qui de droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qui ont avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et que la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements avec ces personnes. C'est tout. am na leen lu mu ci bëgg a wax parce que nag lu ëpp dama ne lu ëpp te nag xeex su jotee ku xeexul doo gor doo doomu gor dama ne capitaine Touré ngeen may ma rek dama ne capitaine Touré juddoo Sénégal yaroo Sénégal Sénégal ñu nekk ko moom moom du liggéey Sénégal fii dëppul kees jaayul suuf nappkatu kees xam nañ leen jaaykatu suuf yi xam nañ leen sàccul sàcckat yi xam nañ leen nga taxaw ne que moom du fi liggéey Sénégal ndax lan parce que da ngeen doon complot mu ne moom nangul dugal loxoom ci complot bi comme na ngeen mbir bi nii la demee dama décidé saisir le bureau de l'Organisation internationale du travail parce que nag on va vous apprendre à vous battre on va saisir le Bureau international du travail pour violation des articles numéro 111 et 190. Et je le rappelle, nous allons interpeller le Bureau de l'Organisation internationale du travail la discrimination, la violence et le harcèlement dont, fait, dont font victimes le capitaine Touré et dëkk bi du moomeelu kenn dëkk bi 1960 la amee indépendance président Senghor nekk président dem président Abdou Diouf ñëw dem président Abdoulaye Wade dem tey nag président Macky Sall la fi nekk plus la violence le harcèlement et la discrimination exercée sur Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. Et je vous dis, ce combat-là, nous allons le porter à l'international. Ça va arrêter. les centrales syndicales sont interpellées. Le maire de Dakar que je suis, je refuse à partir d'aujourd'hui de cotiser dans n'importe quelle centrale syndicale qui ne respecte pas aujourd'hui un minimum de décence. Et je refuse de reconnaître un quelconque responsable syndical qui confond pomme de terre et Angleterre. Monsieur le maire. S'il y a des syndicalistes qui pensent que la position qui est la leur est une position de jouissance parce que ñun dëkk bi fi la ñu juddoo ah fi la ñu yaroo fi xam nañ lépp xam nañ lépp man nag dama ne man bokkuma ci xeetu politiciens chantage ku ma woo ci jàmm ma fekk si la ci jàmm ku ma woo ci ay ma xam suma bopp ma suma bopp et je marche vers l'essentiel voilà. je le dis et je le répète le bureau, de l'organisation internationale du travail sera saisi par les conseils juridiques de la mairie de Dakar les conseils juridiques de la mairie de Dakar vont porter le combat à l'international contre la discrimination, le harcèlement et la violence dont, fait, dont font victimes Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. C'est inadmissible. Ce sont des citoyens sénégalais. Ils jouissent de tous leurs droits civiques. Ils jouissent de toutes leurs compétences psychologiques. Ils ont le droit de travailler dans leur pays et pour pays. N'en déplaise à des personnes qui malheureusement sont en fin de carrière ou dans un, ou dans, ou dans un désarroi. Donc je tiens à le dire avec force et je tiens à inviter la presse à traiter l'information sans aucune sensation et sans aucune passion. Et je voudrais terminer en disant une chose. Si ceux qui ont parlé de révocation, en le parlant, en parlant de révocation, ont peut-être pensé à la mairie de Dakar, je les invite respectueusement à retirer leurs propos. pour la stabilité du pays et pour la stabilité de leur gouvernement. C'est ce que je peux dire.